di dellusiwaat ak yéen ci sunu ñetteelu numéro ci tafsir bi ñu sumb ci koorug ren gi eh, mu aju ci saar yi nga xam ne ñoo gën a suufe féete suuf ci saari alxuraan yi waaye itam bokk ci saar yi ëpp fayda gën a kawe ñu soobu woon nag tàmbalee ko ci saar bi nga xam ne moom la ñuy wax suuratul fatiha muy saar bi nga xam ne comme ni ñu ko waxee woon mooy aji ibbi ji mooy li nga xam ne moom mooy ibbi kaamil bi mooy li nga xam ne itam lépp lu nekk ci kaamil bi foofu lañ ko abrégé foofu lañ ko tënk dëxëñ ko fa ku xam li nekk foofa rek dangay xam li nekk ci kaamil bi yëpp secret yi nekk ci biir kaamil bi yëpp it foofa lañ ko dëxëñ kon foofoo gën a yell ñu tàmbalee fa li nga xam ne moom mooy tafsir bi comme ni ñu ko waxe woon e, démb te mooy jàngat li nga xam ne moom mooy turi saar wi ci boppam bari nay tur lool ñu jàngatoon ci ummul kitaab gi ñu ko tuddee ak ummul quraan ak asabul mathani ak limu mu gën a siiwe mooy suuratul fatiha wala suuratu fatihatil kitaab e, am na yeneeni kii sax yeneeni tur yoo xam ne jotuñu ko woon tudd danañ ko tuddee ashaafiya Eh, mooy aji faj maanaam loo xam day saafara te loolu li ko waral mooy day saafara jàngoroy biir ak jàngoroy biti ci zaahir ak ci baatin dañu ko tuddee suuratu ruqiya tamit maanaam day mocc ndax siiw na ci xadis ba eh, mbooloom saxaaba ma ñëwoon ca dëkk ba ñu war leen a gane ba pare daal leen di ñàkkal solo ñu toog ca buntu dëkk ba Euh, seen kilifa ga waa dëkk booba seen kilifa ga jaan daat koy màtt amuñu kenn ku mën a lugg jaan ji foofu ñu ne nañ gan yële nga xam ne sàggane nañ leen ñàkkal nañ leen solo nañ dem ci ñoom ñàkkul am kenn ku ci xam dara lu mën a defar mbir mi ba ñu demee ba foofu fekk saxaaba yi toog ñu leen yéen est-ce amul kenn ku ci mën a lugg ki kilifa gii de jaan moo ko màtt Ah, benn saxaaba jog taalal loxo bi ne moom mën naa ko te loolu kët mi ko mi ko amee ci fatxoom bu mu am rek lu mu xam ci alxuraan lu mu xam ci faatiha ji ñuy waxtaane du caagee ni daf doon tànd comme ni ko yenn eh, ñiy gàttal yére di ko wax maanaam cest kom ku doon tànd la pour su demee ci yonent bi ñu door a wax déet loolu kenn du ko tànd di maanaam nit mënul wax ne xasida sàngam day day day kii te yow yow yaa koo xalaat rek noonu e, ñun la léegi da ñuy fay pour ñu def ko te def cee charton te laata mu koy def <laughs> kon loolu dafay wane ne moom xam ne ne saa yu ko defee affaire bi wàcc te nekkul lu muy tànd itam ndax munoo wax ne da ngeen may fay nangam pour ma mocc loo xam ne wóoru ne xaqiqatan ne su ma ko defee dara wàcc kon kooka lim doon def lu mu xama xam ne ne fatiha day faj loolu te loolu itam jëlewu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent bi musul wax ak saxaaba yi ci lenn ci fatiha ne day faj nangam waaye saxaaba yi comme ñoo raw wali yi ci wàllu yàlla li wali yu mën a xam ci alxuraan saxaaba mën naa xam lu ëpp loolu fuuf bu ko soxlawul nag mën na ko bañ a jëfee mu jàng fatiha e, ci tànk bi moccee ko ko mu wàcc ci saasi ñu dem yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko yow kan moo la wax ne la affaire bi du du du nu day day day faj loolu num tudati e, loolu nga mën cee déggee ne fatiha moom faj na leneen lu dul jaan ji sax moom waaw e, loolu bokk na ci aw turam waaye tey e, fi nga xam ne fa la ñuy tàmbalee sunu taxawaayu tey mooy baat bi njëkk ci faatixa bi te mooy <coughs> pardon e, bismillahi bismillahi rahmaani rahim baat yooyu ci la ñuy taxaw tey loolu suñu ko xoolee ñeenti baat la bismi allahi arrahmaani arrahim ñeenti baat yooyu nag ci ñun ni ñu ko xamee dañ na ni ñu koy tuddee mooy basmala basmala mooy bismillahi arrahmaani arrahim léegi baatu basmala nag moom araab la wala lan la ban làkk la e, tëggin woowa wan façon tëggin la ci ci tëggini arab yi nga jël ay baat yu bari daggate ko mel ne ku ko yat tëgg ci aw mi tuddee ko basmala nga xam ne dafa mel ne bismillahi rrahmani rrahim lañ dagg ba mu sew ruuj génnee ci tur woowu loolu ci arab moom la ñu tuddee naxt naxt mooy yett dafa mel ne jumla ji li muy gudd gudd dañ koo yett ba mu yam ci ñeenti araf yi basmala euh, loolu nag laata l'islam di ñëw mën nañu wax ne amul woon la amoon laata l'islam di ñëw loolu murakkab idafi la bu ñuy nisba maanaam boo bëggoon wax abdu shamsi nga taqale ñaari kii tu def tuddee ko daa di wax ab shami wala abdu daari nga wax abderi loolu moo jotoon am ci mbir yu ñuy jaxase di ko boole l'islam nag bi mu ñëwee ñoom ñoo def tawassu boobu yaatal googu ci mbir mi jël jumla joo xam ne dafa bari lu ñu koy wax bisimilah rahmaan li ñu koy wax bari na ñu jël jumla jooju e, dajale ko tëgg ci aw tur nga xam ne tur woowu suñu ko waxee rek dafay aju e, ci li nga xam ne moom mooy phrase bu gudd boobu nga xam ne léegi fu ñu waxatee basmala da xam ne bisimilah rahmaani rahim lañ ci jublu loolu la ñuy tuddee naxt am na ñu koy tuddee al istiqaaqul kubbaar loolu nag yemul ci bisimilah rahmaani rahim rek waaye ci baat yi nga xam ne lislaam indi na ko te ñu koy wax lu baree bari yooyu yëpp dañ ko ciy tëgg eh, moo tax waykat ba di wax ne qawmun ala al islaami lamma yamnau maunahum wa yudayiu tahlila muy tagg aw nit ne ñoom ci lislaam lañu sax du duñu sàggane mukk at tahlila at tahlila mooy lan laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa boobu nga xam ne saa su nekk nit di ko wax ñu yett ko tëgg ci aw tur ñu koy wax tahlil wala ñu koy wax hayla naka noonu la umar ibnu abi rabiata di waxee ne ba muy tagg layla di wax ne laqad basmalat layla gadaata laqiituha ala habada daaka alxabibu almubasmilu waaw basmala mubasmilu nga xam ne masdar bi nekk basmalatan basmalat layla mooy layla wax na bismillah kon cosaan bi sax moo doon bismillah kese moo doon mbir mi naxt bi ci bismillah kese la yemoon euh, ñii ñëw ca gannaaw nag ñoo ci yokkaat arrahmaani rahim bi boole ko ci mais buñ ne basmala mooy bismillah rek ñu gën a yaatal nag wax ne basmala mooy bismillahi rahmaani rahim euh, bismillahi jooju nag wala boog basmala jooju boroom xam-xam yi wax nañ ne yemul ci basmala yi kese danañ wax sabxala mu tekki lan subhanallah baat yi nga xam ne dañ koy wax lu bari xay ala muy xayya ala salaa xawqala mu jël baati laa xawla wala quwata illa billah xamdala mu jël alhamdulillah hallala mu jël la ilaha illallah jay ala mu jël juiltu fidaaka ak yu yu baree bari bëri yoo xam ne l'islam moo ko fi indi te dañ koy utiliser lu baree bari comme dañ koy utiliser lu baree bari te wax ju xaw a gudd la wala phrase bu am ay baat la ñu jël baat yooyu rek dammate dammate ko jël ko tënk ci ab baat am luy tuddee euh, lii xëy la la foo ko déggee rek xamal ne laa ilaha illallah la basmala foo ko déggee bismillahi rahmaani rahim la Eh, hasbala fo ko dege hasbunallah wa nicmal wakil aha sabhala fo ko dege subhanallah la ak yu mel noonu eh, moo tax ngay dégg eh, werdkat yi di wax ne dama am dogub basmala dogub basmala bu may def wala dogub hasbala bu may def ak yu mel noonu ak dogub xawqala bu may def ma ngoog basmala ji nag lu tax ñun jàngatuñ ko comme kuy jàngat faatiha moo di ne basmala day ñëw ci saar bu nekk maanaam saar bu nekk dafay tàmbalee lan bismillahi rahmaani kon bu ñuy jàngat bismillahi rahmaani rahim dañuy jàngat bismillahi rahmaani rahim en tant que moom mooy lan nga xam ne jàngat googu e, faatiha bi da ciy dugg ak yeneen saar yi yëpp taxawaay ba mu fa am e, te comme borom xam-xam yi dañ cee wuute ci ne euh, ndax moom <coughs> dañ koy compter mu nekk ab laaya moom euh, basmala jooju bisimilah rahmaani rahim dafay nekk laaya ci saar bu nekk wala euh, aaya la ci wala nekk na aaya ci fatiha kese te nekk ko ci yeneen yi Euh, wala nekkul aaya ci benn saar loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute dinañ ci ñëw comme loolu am na nag wuute boobu am na te basmala fu nekk lañ koy gis ci saar bu nekk daf caa am kon nag ki nga xam ne moom mooy def tafsir wala moom mooy firi alxuraan war na jéem a xam maanaay basmala jooju bisimilah rahmaan lu muy tekk ak lanay àtteem ak ban taxawaay la am ci eh, saar yi yi nga xam ne moom lañ koy ibbee loolu nag gëstu boobu dañ koy séddale ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy basmala est ce que aaya la ci tàmbalima saar yépp wala déet loolu mooy lu njëkk li ñaareelu mbir bi mooy eh, di jàng basmala laata ngay jàng benn saar loolu lan mooy àtteem mooy suñ jógee ci ne aaya la wala du aaya ki yépp la ci borom xam-xam yi ba noppi waaw léegi di ko jàng nag bala nga ibbi benn saar nga wax bisimilah rahmaani rahiim ba door a jàng saar boobu loolu lan mooy àtteem ci diine ñetteelu gëstu bi mooy e, maanaay basmala ci boppam maanaam baat yi lan lay tekki suñu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy gëstu bu njëkk bi te mooy est ce que basmala aya la ci alquran aya la ci tambali ma sari wala dit <coughs> lol dañuy gis amna na xamne ñaari mbir yo xamne nit ñi mosuñu cee nit ñi mosuñoo wuute borom xam-xam yi ci ne bismillahir rahmanir rahim baat yoyu di ñent baat yoyu baati alquran la te dafa nek ci biir alquran boo demee ci saaru namli ci fanweereelu aaya da ngay gis mu ne innahu min suleymaana wa innahu bismillahi arrahmani rahim kon baatu bismillahi rahmani kenn wérantewul ba xam alxuraan la wala déet loolu kenn du ko wérante loolu ñépp ñoo ci dëppoo <coughs> naka noonu itam noonu lañu ñu dëppoo wee am na saar boo xam ne ci biir alxuraan moom amul basmala muy suuratu ba léegi nag wuute bi fan la nekk wuute bi kon nekkul ci ne e, maanaam e, ndax basmala aaya la ci alxuraan wala déet loolu wuute wuñ ko li ñu wuute mooy tàmbalima saar boo dem da nga fekk ñu bind basmala basmala boobu ñu bind ci buntu ba nag nga xam ne danga koy wax ba pare door a jàng saar bi est ce que basmala jooju aaya la ci saar booba wala déet loolu benn la est ce que basmala jooju nga xam ne moom la ñuy jàng door a jàng saar bi bala ñoo jàng ixlaas ñu jàng bisimilah rahim qul wallahu ahad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 loolu nag soo ko soo suñ ko jàppee noonu dangay gis ne wuute bi am na ca nga jël imaam Malik ak al imaamul awzaa'i ca Shaam ak fuqahaul madina yi ak fuqahaul Shaam yi ak Basra yépp boo ci génnee kenn rek muy Abdullahi ibnu Amr ibnu Hisham dëkk Médine ñeneen ñépp ci dëkk yi ma wax dañoo d'accord ci ne eh, basmala du aaya ci benn saar maanaam basmala du aaye ci fatiha duñ ko ci konte duñ ko konte ci suratu beneen waaye nag moom basmala baat yooyu baati alquran la ndax mi ngi nekk ci suuratu namli dañ koy indi ngir di ko ubbee bi waaye du aaye ci saar biñ koy ubbee kenn du ko konte loolu la borom xam-xam yi ma wax loolu lañu wax al imam shafii ci lenn luñu jële ci mom ak imam ahmad ak ishaq ak abu thawr ak wa màkka ak kufa ba mu dess abu hanifa ñom dañoo wax ne basmala aya la mais ci fatiha kessé la nek aya manam kenn du ko konte ci suratul namli wala suuratul qasas wala suuratul shuara wala suuratul falaq wala suuratul naas yooyu basmala du fa aaya waaye fii di suuratul fatiha bii nag basmala aaya la ci manam dañuy continuer bismillahi rahmaani rahim benn aaya ngoog nga ne alhamdulilahi rabbil alamin ñaar noonu noonu ba saar bi jeex waaye yeneen saar yi ci alxuraan yëpp nag basmala dañ koy ibbee saar ba mais kenn du ko conté aaya foofa loolu la ñooñu wax loolu la ñu wax moo ne aaya la mais ci fatiha kese amna benen beneen wax buñ jëlee ci abdullah mubarak ak nañ ko ci imam shafii itam mu wax ne aaya la ci bépp saar saar boo gis eh, ñu tàmbalee ko bismillah rahmaan rahim xamal ne am nga benn laaye ak leneen loo ca yokkaat loolu nag eh, ñetti ne du aaya ci benn saar kenn du ko compter lu ñuy ibbee la pour dugg ci euh, saar bi danga koy wax pour dugg ci saar bi waaye du kenn du ko compter benn laaya am ñeneen ñu wax ne basmala aaya la mais ci faatixa kese la nekk laaya yeneen yépp kenn du ko compter am ñu wax ne aaya la fépp muy faatixa muy feneen euh, lool nag xëy na bu ñu bëggee indi li nga xam ne mooy sukkandiku kaayu gaay euh, dana bari lool ndax ku nekk borom téere bi indi na fa nga sukkandiku ba wax sa wax yooyu euh, ak euh, lay say lay ca mbir ma <clears throat> yooyu yépp dañ koy tëb moom ibnu ashur mom mooy ñëw ca njeextal la wax ne li nga xam ne moom mooy li jàpp ci masala moo di ne dafa jàpp ne basmala e, dañ koo bind ci tàmbalima saar bu nekk ngir tàqale saar bu nekk ak moroom ja maanaam ngir ñu xam ne suuratul falaqi de bu ñu waxee bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad nga xam ne fii la mbir mi tàmbale waaye nag la ñuy tàqalee diggante saar bu nekk ak morom ja ñu bañ koo def leneen lu dul alquran moo tax ñu jël baat ya nga xam ne moo amoon ca biir alquran te mooy bisimilah rahmaani rahim jooja ñu jël ko di ko baamu nag ci saar bu nekk balaa ñu koo tàmbali ñu wax baat yooyu ndax yonent bi dafa waxoon ci xadis ne bépp mbir moo xam mbir mu am fayda la te tàmbalee wuñ ko bisimilah rahmaani rahim mbir mooma barke ba dem na te kenn mënul wax ne alquran wala njàngum alquran nekkul lu am fayda te kon li hadith bi wax soche janggul so ca jangul bisimilah rahmaan rahim ba ngay tambali kon su boba barke ba ca koy ñak ngir baña ñak lola rek motax ñu def ci sar bu nek lata ñukay tambali ñu wax bisimilah rahim euh eh, ab bu bare bare bare la ci digënté borom xam-xam yi ci walum basmala ayela wala du ayé loolu sax mom moy dem ba indi ne est-ce que dañ ko war a jàng ci ci biir julli gi wala wareesu ko jàng dañ koy yelu wala dañ ko yelu su boobaa loolu dafay delluwaat ci wuute bi ñu waxoon léegi xam nga ñi waxoon ne aaye la fépp ñooñu ni ñuy jàngee yeneen baate alxuraan noonu lañ koy jàngee ñi waxoon ne du aaya ci alxuraan du aaya ci ci bopp saar yi ñooñu duñ ko jàng bu ñuy tàmbali fatiha eh, ñi nga xam ne dañ ne aaya la ci fatiha kese te mooy al imaamu shafii yooyu ñooñu jàng bismillahi rahmaan rahim baat yooyu nga wax ko ca kaw booy biral nga biral ko ak alhamdulilah rabbil alamin loolu day nekk benn mbir day war comme ni nga xam ne noonu la jàng fatiha bi yëpp waree waaye loolu dafay indi wuute dafay indi wax bu baree baree bari ci ci tafsir bi moo tax ñu gis ne nañ ko sute pour mën a gaaw a àgg fi jëm euh, am na beneen wuute boo xam ne tamit bëgg nañ koo junj ci mbir mi mooy jàngkatu alquran yi ñoom warsh euh, ak xafs ak xaalu nag cobaak yu mel noonu am nañu wuute ci nit ki bu jeexalee benn saar doon jàng benn saar ba jeexal ko ba war a dugg ca beneen ba diggante boobu basmala jooja da koy jàng wala mën na koo tëb dugg ci beneen saar bi directement loolu dangay ngay gis ne warsh la mu jëlee ci naafi may sëriñam ak la nekk ca qiraatu ibn amir ak abu amrin ak hamza ak xalaf ñoom ñëpp ay jàngkatu alquran lañ am ay qiraa <coughs> ñoom dañoo gis ne nit ki du wax bisimilah rahmaani rahim ci diggante ñaari saar yi bu génnee ci biir rek mën na génn dugg ci beneen bi directement ñu ne loolu li tax mooy e, bisimilah rahmaani rahim jën ca bind binduñu ko jë pour mu tàqale ñaari saar yi dañ ko caa bind pour ne balaa nit a tàmbalee jàng saar na ko jàng kon baga tàmbalee jàng sa saaro ba jàngoon foofu bisimilah rahmaani rahiim yeneen bisimilah rahmaan yi ngay romb ci yoon wi yëpp doy na ndax pour tàmbali rek la woon du woon pour tàqale ñu ne bu doon saar yi bisimilah rahmaani ya ca nekk pour tàqale ñaari saar la kon fatiha du am bisimilah rahmaani ndax fatiha amul saar bu ko jiitu te moom am na bisimilah rahmaani rahiim euh, loolu leen la ca la ñu sukkandiku ñoom. Eh, qaaluun eh, la mu jële ca naafi may sëriñam itam ak ibnu kathir la mu wax la nekk ca njànginam ak aasim ak alkisaa'i ak abu jaafar ñoom nag dañuy wax bisimilah rahmaani rahim suñu génnee ci saar di dugg ci beneen ba faw dañuy wax bisimilah rahmaani rahim ba mu des nag diggante lanfaal ak baraa ndax foofu moom dara nekku fa waaw Euh, lool nak ñoom lañ ci def rek moy dañoo top ni kamil bi doxé ñu gis ne comme dañoo bind bisimilah rahmaani rahim ci ki bu nekk laata ngay dugg fu nek da ngay euh, da ngay def loolu ndax rahim yoy dafa sar bu nek ak morom ja kon boy dugg ci sar bu nek da ngay jang bisimilah rahmaani rahim loolu euh, lu mënul woon ñak la ñu junjuko ñu wara ñew nak ci rahim ci bopam Euh, euh, mooy lan bismillahi rahmaani euh, loolu nag suñ ci ñëwee dañuy gis ne <coughs> bismillahi rahmaani rahim wax ji dafa tàmbalee jaar ak majruur bismillahi baa ju ñu jar ci suuf ju maas ci suuf teg ca siin miim door a indi turu yàlla bi loolu nag ci naxu jaarak ak majuróor lañ koy tuddee loolu nag laa budda am na lu ko jiitu léegi nag werante bi nekk ci lan moo ko war a jiitu xam nga su ma nee e, ci biir kër gi kese loolu jubul faw am na wax ju ko jiitu am na baat bu ko jiitu maa ngi dugg wala dugg naa e, wala maa ngi kii wala nangam wala nga dema ci sa doole wala ci sa xam-xam loolu mënul jub boo nee ci sa nàngam rek am na loo jiitu lu jiitu loo waroon a wax wala loo bàyyi loo xasaf loo dindi lu bokk ci wax ji te ñëwul loolu nag mën naa calculer ne li nit ki bëggoon a wax de banaan ci sa doole mooy dafa bëgg a wax ne sukkandiku naa ci sa doole wala yéemu naa ci sa doole wala nangam ak nangam waaye mënuñoo tëb rekk wax bismillahi ci turu yàlla ci turu yàlla lan faaw am na loo ba lu nit bàyyi faaw am na maxsuuf ju nekk foofu maxsuuf ji lan lay doon nag foofu la wuute ba di nekk ndax damay wax ne aqra'u maa ngi jàng bismillahi rahmaani rahim ci turu yàlla sukkandiku ci turu yàlla wala damay wax ne abtadi'u maa ngi tàmbalee wala maa ngi doore bismillahi ci turu yàlla e, lu ëpp ci li ñuy li ñuy calculer foofu nag ñaari baat yooyu la abtadi'u wala aqra'u wala xuulu ñu ne yàlla moom mooy wax ne yéen doomu aadama yi quulu wax leen bismillahi rahmaani rahim waaye li ñu war a xam moom mooy bismillahi rahmaani rahim kese munu faa nekk faaw am na loo xam ne moom la ñuy calculer door dugg ci bisimilah rahmaani rahim boo demee ci suufiyanke yi nag ñoom dañuy wax ne e, du nekk e, maanaam ay wax ak wax ju ñuy wax wala fi'l di ko jiitu ak jëf waaye la ko jiitu moom xabaar la ci mubtada ja mubtada ja moom la ñu xadaf <coughs> li fi nekkoon mooy ibtidaa'ul aalami wala iftitaaxul aalami bismillahi rahmaani rahim maanaam adduna bi li koy amal ak li ko ibbi ak li ko yëngal lépp turu yàlla la moo leen yëngal maanaam moo leen di doxal itam eh, ku nekk ak la ngay calculer foofu kon waaye li fi nekk mooy ci turu yàlla waaye la ñuy calculer nag ku nekk ak li nga xam ne moom nga jàpp ne loolu mooy li nga xam ne moom moo fi nekkoon Euh, li tax ñu xasaf dara nag bàyyi fi lii kese ngir ne li ñuy wax ci alxuraan ne lu nekk mën na koo yenu wala mu àttan na lépp xamaalu aw ju comme niñ koy waxee moo tax yiñ ci calculer yépp ne moo fi nekkoon yooyu yépp dafee mën a nekk maanaam jub na ñu wax ne maa ngi jàng sukkandiku ci yàlla sukkandiku ci tur yàlla bismillahi rahmaani rahim bismillahi jub na itam ma wax ne abda'u bismillahi abtadi'u bismillahi wala quulu qul bismillahi yooyu yëpp wala li li li gaay yàlla yi di wax moo ne bi doxalinam ak yëngatoom ak dalam yëpp mi ngi aju bismillahi ci tur yàlla yooyu yëpp ñoo mën a nekk xasaf dara nag ci diggante jaar ak majrur loolu bari na sax ci alquran alquran mi ngi wax ne fa alqaw xibaalahum wa isiyahum wa qaalu bi izzati firawna inna la nahnu alxaalibun mën naa wax ne bi izzati firawna foofu kenn mënuta wax ne bi izzati firawna rek daat dem waaye am na lu ñu wax ñoom waat ñoo ngi waat bi izzati firawna ñoo ngi waat ci màggaayu firawna ñoo ngi waat boobu nag dañ ko xasaf dañ ko fee jëlee naka noonu ñoom ñoom jaahiliya daanañ wax ñoom yéeféer yi bismillaati wala bismil uzza xam ne majruur ja wala bokk euh, la jiitu jaar ak majruur ja dañ ko xasaf waaw euh, léegi nag baa jooju nga xam ne moom moo fi nekk nag euh, li nga xam ne moom lañ koy moom lañ koy duppee ci ay maanaa dafay bari maanaam baa ji nga xam ne moo war a jar ab tur euh, wala damir baa jooju dafa am ay maanaa yu bari baa dana tekki lu ñu tuddee istiaana bil bastain wa addi awwid alsiqi waaw loolu la ibnu malik wax baa dana te dana tekki taawid maanaam weccoo mbir ci mbir ishtarawu dalalata bil huda baa jooju dafa dafa tekki weccee maanaam dañoo jënde eh, nangam ci nangam ci googu nag mooy ba bi mooy ba baa dana ñëw tekki leneen tekki istiaana sukkandiku sukkandiku ci dara loolu baa ji dana ko baawu bismillahi rahmaani rahim ji dana ko tekki maanaam li yàlla wax ne bismillahi rahmaani rahim mooy maa ngi sukkandiku atamidu bismillahi maa ngi sukkandiku ci turu yàlla pour mën a taxaw pour mën a def li may def dana tekki ilsaaq taqale ñaari mbir te duñ tàqale ko ba abadan boobu tamit baaj yi dana ko kii li may def ak lépp dara du ci tàqale ko ak turu yàlla maanaam lépp ci turu yàlla lay doxee musaaxaba mulaabasa ak yeneen yeneen yeneen taadiya zahaba allahu bi nuurihim zahaba laazim la te day jël day day laal ca mafuul ja ndax baa boobu moom ci yóbbu ak yu baree baree bare waaye baa jii nag li gën a notu nag ci lan la lan mooy maanaawam moom bismi googu baa jooju lay maanaawam dëgg-dëgg la ca gën a notu mooy danañ ko tuddee baa ul musaaxaba wala ilsaq nañ ko tuddee tamit baa ul istiaana maanaam baa jooju sukkandiku lay jariñ wala maanaam sukkandiku la yor wala ñu ne maanaam tàqaloog dara te duñ tàqalikoo euh, la yor ak yu mel noonu ismi nag mooy lan ism dañoo wax ne bismi baa jooju wax nañ ko ba noppi léegi nag mu des ismi ismu ci boppam mooy ñu ne ismu ab baat la boo xam ne dafay tegtale jëmm jëmm jooja nag lu ñuy làmb di ko daj la wala lu ñuy xel di ko xalaat lu xel di daj la wala lu loxo di laal la loolu la tur di jariñ tur boobu kon mën naa nekk lu am xel mën naa nekk lu ko ñàkk mën naa nekk luy dund mën naa nekk loo xam lu dundul la miir buñ ne aljidaar loolu tur la baatu aljidaar tur la lan moo tax mu nekk tur mooy baat la boo xam ne dafa tegtale jëmmu mooy miir bi buñ nee al aqlu xel baatu al aqlu baat la boo xam ne dafay tegtale jëmmu te loola mooy xel waaye loola du lu ñuy làmb di ko daj tur mooy loolu maanaam ismu mooy tur tur mooy loo xam ne dafay la jëmm moo xam lu ñuy làmb daj la moo xam lu ñuy xellu di ko xalaat baatu lisim nag werante nañ ci lan la jóge boo demee ci basri yoon yi ñoom dañuy wax ne ismu mu ngi jóge ci sumuwu sumuwu mooy ak yëkkatiku comme tur nag dañ koy dañ koy maanaam dañ koy tuddee wala bokk dara dañ koy tuddee loo xam ne lu kawe lay doon loola tax na e, ñu jël e, baatu sumuwu di ko tuddee lépp loo xam ne bëgg nañ ko jox ak màndarga rek te màndarga foo ko fekk day kawe moom lay tuddee al alam e, loolu ñu jël sumuwu gi tuddee ko baat boobu ci lañ daggee isim loolu la ñi nga xam ne ñooy basri yu yi loolu la wax su boobaa ñetti arafa fi nekkoon siin ak miim ak waaw ñu dagg waaw gi te moo mujj ci araf yi kon ñaari baat rek a fi des ñaari araf rekk a fi des muy siin akuk miim siin gu ñu maas ci suuf wala gu ñu maas ci damma ak miim gu ñu sukkuun su ko defee nag kom dañoo xasafoon ak waaw ca araf bu mujj ba ñu remplacer ko ak alif ci ma ma bi kon am nañ alif am sin guñu damma ak mim, su boba isum mo fi nek ñu jël eh, sukun gi nek ci mim gi mujju daat koy tek ci digg bi jël damam jooju indi ko ci bu mujju bi su boba ismu dat taxaw ñom non lañu ñu gisee ne noonu la mbir mi kiwe kon eh, ci eh, li nga xam mom la basri yu ni wax moo di ne ismu moom ci sumuwu la jóge ñeneen ñi seen doom bàjjan yi di kuufiyuun yi ñoom dañoo wax ne isim jógewul ci sumuwu ndax lan moo di ne léeg ñu tuddee eh, mbir loo xam ne lu ñàkk fayda la waaw loolu la eh, waykat bu doon wax ne kada fajaari alamun lil fajara léeg ñu jël benn mbir tuddee ko euh, dara loo xam ne loola lu lu lu yées la sax moo tax ñu ne kon isim ñoom ci koofi yu ni mi ngi jóge ci sima la jóge sima mooy ak màndarga tur màndarga la buñ nee diw taala kebe maanaam baat boobu dafa màndargaal benn jëmm yoo xam ne suñ ko gisee rek loola dafay aju ci kawam maanaam da ngay gis rek xam ne sëñ Mbacke Diop nga xam ne boo waxee baat bi rek dafa am jëmm ju muy tegtale mandarga la ci jëmm jooja. sima nag boo ko yóbboo ca cosaanam was mu moo fa nekkoon wasama yasimu sima wasama jooju nag ñu jël waaw ja daat koy dagg def ko def ko alif wax ja jeex e, ñoom noonu lañu gisee ne noonu la noonu la noonu la euh, mbir yi tëdde kon isim loolu mooy cosaanam basri yu ni dañoo wax ne ci sumuwu la jóge ci ak kawe ak ku yëkkatiku ñeene isim ci siima la jóge maanaam màndarga léegi nag euh, loolu mooy cosaanal tur isim fii nag alquran tàmbalee wax ne bismillahi bismillahi te waxul billahi lu tax muy dugal isim ci diggante bi ci yu baree bari boroom xam-xam yi ne loolu lépp boo ko seetloo lim lay jox mooy lépp loo xam ne mbir mu ñuy jaamoo yàlla la ay jëf la joo xam ne dañ koy jaamoo yàlla wala dañ koy def ak jëf la ju ñuy def di ci di ci di ci ci jokkale yàlla duñ jël jëmmi yàlla def ko directement faw ñu doxale ci isim baatu isim moo tax dañuy wax ne yàlla day wax ne fakulu mimma zukira smullahi kenn waxu zukira allahu zukira smullahi faaw mu dugal ci baatu lisim ndax ba jëmmam ji nga xam ne mooy allahu loolu la dul taqaleeg jëfi doomu aadama ji e, moo tax mu ciy dugal baat boobu naka noonu lay waxe wa maa lakum allaa taakulu mimma zukira smullahi faaw mu dugal ci baatu isim lépp loo xam ne nag jëf la ju ñuy barkeeloo ak di ca sàkku barke yépp dañ ciy dugal isim maanaam iqra bismi rabbika naka noonu ak yu baree bare euh, waaye mbir moo xam ne nag dañuy màggal yàlla ak di ko dàqal lépp luy manqué manqué mën nañoo def directement wax ne sabbixhu wa adbaara sujud wa min al layli fa sabbixhu ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lépp dafa aju ci li nga xam ne moom mooy euh, maanaam ak lisim léegi nag loolu mooy bismillahi arrahmani rahim maanaam lu jëm ci baatu allah nag ak arrahman ak arrahim yooyu yépp nag dañ koy aj ba àgg ca ndax ci biir saar bi dafa am baatu allah mooy alhamdulillahi fa la ñuy tasee lan mooy allah ci boppam Euh, am na fa tamit arrahmaani am fa arrahimi moo tax dañuy doyloo foofa buñ ca yeggee ñu tasee ko foofa incha allahu taala euh, waaye baat bii di bismillahi rahmaani rahim nag moo tax ñuy wax basmala euh, wax ju baree baree bari moo ci aju boroom xam-xam yi wuute ci te wuute yooyu moom lañ doon jéem a tas foofu waaye bokk na ci li nga xam ne daal nitu yàlla yi dañ koy wax ñu ne eh, li tax alxuraan tàmbalee kasara moo di ne kuy yegg ci yàlla wàcce sa bopp moo la fay yegge maanaam suufe jaar ci suuf eh, loolu moo lay may nga mën a yéeg moo tax araf bi njëkk ci alxuraan dañ koo kasara ci suuf ngir wane ne tawaado mooy marta bi nga xam ne ci leen nit di jaar ba yegg ci yàlla wàcce sa bopp eh, am na yeneen boroom xam-xam yu wax ne li tax yàlla melal boppam ñetti melokaan ci tàmbalima bi dafa bëgg woon nasaraan yi ne leen e, yéen ñi jàpp ne Isaa yàlla la yaayam nàngam la ak yàlla ñuy ñett mu bëgg leen a woon ne yàlla lu tura turam yi bari bari bari benn jëmm la kenn la donte ay turam dafa bari lool donte ay jikkoom ay melokaanam dafa bari lool waaye yooyu yëpp nag musammayaat yi kenn la waaw loolu mooy li aju woon ci wàllu bas ak yu mel noonu suba nag ci lañuy dugg ci baatu alhamdulillahi ñu génne nag tawxiid bi nekk ci alhamdu ak lan mooy allah ci boppam su ko defee loolu mooy nekk darsu suba bi incha allahu taala ñu ngi jégglu guddal gi du ci yàq dara eh, eh, jàpp naa ne ñi fi nekk yëpp ay borom xam-xam lañ te lii ak nafar lay doon ci ñoom eh, su ko defee même ñi nga xam ne sax daanaka am na yuy bees ci ñoom su ko defee loolu dafay nekk loo xam ne xéewal lay doon incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa